arbitre waat na leen arbitre suuf laat na combat ba bëree loolu bu jeexee foofu daam Pape Mbaye day gagné combat bi xeex daama ngay xeex ak moom daam door na jàpp ko daam jàpp na ko waaye Pape Mbaye ba eh laa ilaha illallah foofu ndax jël mënu fee amam tee ba sax na de Pape Mbaye tee ba mu tee sax na de tey koo bëgg a xëcc xar ko Pape Mbaye gis na loola bañ ko atte awoy ardo ba tey mu ngi naaj moom Dame dam sen batay pa fay mu ngi nacc ngay faju ca docteur ya arbitre baa ngi koy defal muy raxas protestant ba di galax ndiku ndeysaan waaye arbitre baak daam seen lamba metti combat bi da xalaat naa ci point lay jeexe te xalaat naa ne Pape Mbaye da koy yóbbu wala daam day bañ loolu a ngi door dóor a ngi door eh daam mooy loolu daam bul xaritu ak son Pape Mbaye neexut a bëreel Pape Mbaye neexut a bëreel laa ilaha illallah daam dina ko daan daam dina ko daan Pape Mbaye day bañ la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah eh Pape Faye sa turandoo Papa Mbaye ah waay Pape Mbaye eh Papa Mbaye eh, a ko yar ah waay Papa dafa tina affaire Pape Faye ah bib jil waaru woo xoolal daam seen xool ma daam may ma tuuti daam di courage mais xool waa géej way Pape Faye xoolal waa géej way xoolal ma waa géej way Pape Faye waa yow daam seen mi yéen daam seen mi daa feebar de Papa Mbaye mi lu ko dal Pape Faye Papa Mbaye luy problème am laa ilaha illallah Pape Mbaye Pape Mbaye mi lu ko dal